mu làmboo jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem ni ñaan yàlla mu di ko sëmbal ci suñ kaw ilaa yawmil xiyaama ñoo ngi dellusiwaat ak yeen ci seen seen bi ngeen xam di muslih tv point com di dellusiwaat ak yéen ci darsi bi nga xam ne sosoon nañ ko ak yéen ci jamonoy koor gi doon ànd ak yéen lu jëm ci wàllu koor yàlla dogaloon na jëloon nañ ñaari dars tey ñu war a ñëw ak yéen tey suñu ñetteelu dars ci koor gi suñu darsu tey nag mi ngi war a commencé fi borom téere bi di wax naan waman man aftara fi nahaari ramadana naasiyan fa alayhi alxadaawu ilax ba bunt ba jeex mu ne wa aftara képp ko dog fi nahaari ramadana ci bëccëgu koor naasiyan te fekk daf koo fàtte mu ne fa alayhi war na ko alxadaawu fay mu ne képp koo xam ne danga dog ci bëccëgu weeru koor te fekk danga nga koo fàtte danga nga juum lekk wala nga fàtte naan moom borom téere bi nee na da fay waaye loolu nag buñ delloo ci jàngale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent yàlla muhammad nee na nasiya ahadukum fa akala aw shariba mu ne falyutim sawmahu na mottali kooram kenn ci yéen daal bu juumee lekk wala mu juum naan moo ne na mottali kooram mu ne na xam ne loolu mu lekk wala loolu mu naan yàlla moo ko ko leel loolu la yent yàlla Muhammad jàngale ci xadis boo xam ne Buxaari ak Muslim yépp solo nañ ko kon loolu mooy li nga xam ne ku juum ci koor lekk yent yàlla Muhammad ne na mottalil lekk googu nga lekk yàlla moo la ko jox naan googu nga naan yàlla moo la ko jox borom xam-xam yi ne nag imaam borom mazhabu Maalik ñi wax ne nag lu tax Maalik wax ne da ngay fay mooy dafay moytuloo ñu sant mbay ak tureeg loo askan yooyu buñ kooree rek di juum jumlu di di lekk yonent yàlla moo xamee ne na boobaa jéggal na leen waaye ñi sant mbay ak loo nga xam dañuy bëgg lu yomb buñ déggee xadis boobu day tax ñuy juum juumlu léegi Malick nag ne day tëj barrage boobu ngir napp leen ngir ñi bañ koo ah, bañ bañ xëtt barrage bi kon mi ngi noonu loolu daal mooy lay wi tax mu teg wax ne moom boobaa da koy fay ngir muytu moytuloo ñi ñi nga xam ne ñu bëgg lu yomb ak di juum juum la ñu boobaa loolu mooy aja kon képp ku jum ci koor lekk naan yént yàlla Muhammad nee na loolu nga lekk wala loolu nga naan yàlla moo la ko lexal bu dee naan gi la yàlla moo la ko lex nga naan kon boobaa dara waru ci kon kon pare na ci lool mu ne wa kadalika naka noonu timit man aftara képp ko dog fii ci weeru koor li daruratin ngir lor min maradin ci feebar maanaam képp koo xam ne dangaa dog ci bëccëgu weeru koor amaana dangaa feebar moo tax nga dog booba loolu fay dong moo ciy war waaye nag balaa ñu laa may nga dog mooy feebar boo xam ne dafay boo wooree day ànd ak coono bu méttee métti métti wala tamit woor gi mën na laa jural yéex a wér maanaam feebar bi gën a yàgg boobaa yu mel noonu ci lay may ngànt pour nga waaye bu dee yow sa feebar bi ab loo xam ne lu ndaw la yàqalu la dara yàq mun la boo waroon du la wàññi dara boo naanoon la boo ah dë boo rutoon la wàññi dara boo waroon du la wàññi dara nga bëgg lu yomb rek na man feebar naa rek xaaral ma dog ah bu dee feebar bi daal yëg foofu nag boo dogee ci loolu kese day ànd ak fay ak kafaara balaa la ko teggal day fekk feebar bi benn boo wooree da ngay bëgg a dee wala boo wooree feebar bi mën naa yokk feebar bi waaye dégg ñu wax ko rek nga dog noonu rek te yow feebar bi tollul fenn boobaa day ànd ak fay ak kafaara ku ne bàyyi ci xel mu ne ba tey wa saafara kook tukki na safaran ab tukki yuqsiru fi tuqsiru fi salaatu falahu ñeel na ko an yuftira wa in lam tanalhu ad waaye nag wa alayhi alqadaaw mu ne képp koo tukki képp ku tukki tukki moo xam ne dagan naa wàññi julli muy maanaam distance bi mat na 70 kilomètres boobaa islam may na la tamit nga bañ a woor donte sax tukki mi doo ci am benn difficulté doo ci sonn maanaam comme bu dee amaana bu njëkk ba fas nga daan war a ki gileem ak yi ni mel mais léegi oto ngay dugg wala avion ngay war ak lu mën a doon rek nee na boobaa islaam may na la nga dog mu ne boobaa nag wax nga yil xadaa waaye da ngay fay waaye nag nee na was saw mu koor ahabbu moom lañ gën a bëgg ilay naa ci ñun mazhabu imam malik nee na boobaa na nga boole koor geeg tukki mi neen moom li moo li mooy liñ gën a bëgg ta tamit mooy la alquran wax wa an tasuumu xayrun lakum yàlla mu ne may naa leen ngeen dog fa man kaana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin uxar waaye wa ala alladina yutiquunahu fidyatun taamu miskin fa man tatawaa xayran fa huwa xayrun la waaye wa an tasuumu xayrun fa huwa xayrun lakum kon boo boolee koor gi ak ah, tukki mi yiw ci lay gën a bëri kon moo tax mazhab imam Maalik ne loolu la tànn donte lee nag kado la boo xam ne yàlla ko may kum neex nga jël ko waaye nga boole ñaari nee na boobaa yiw yi ci lay gën a bëree te bu dee ngir imam Maalik neen ñun tànn neen daal booy tukki nga war waaw lu ma leen gënal ba tey muy continuer mu ne waman saafara kook tukki na aqal la lu gën a néew lu matut min arbaati buridin ci ñeenti burut di tolloog cent dix kilomètres lu ko gën a néew nag fa mu njort ne annal fitra naka dog mu baaxul lu dagar la ko ñeel ko fa aftara mu dog ngir lool fala kafaarata alayhi kub du kafaara ki nga xam ne moom dafa doon tukki yàlla dogal na li mu diir bi muy tukki matu soixante-deux kilomètres soixante-dix kilomètres waaye moom mu jàpp ne mat na ko ba tax mu dog koo moom day fay rek waaye du kafaara ndax lan moom ta tawilul xarib la def moo tax dafa yaakaar ne dagan na borom xam-xam yi wax nañ ci la mooy tawilul xarib ak tawilul yi da gini mel waaye kooku moom tawilul xarib la boobaa fay dong moo ko ci fekk tawilul xarib nag bu ñu koy wax mooy lu mel ni koo xam ne moom exemple dafa dem ba fajar mu lekk jàpp na léegi bi muy lekk moom fajar passé na tamaana boobu passé muy loolu la yaakaar yaakaaroon ba tax mu dog boobaa kooku dañuy jàppe tawilul xarib fay dong lay def ak ki nga xam ne jigéen ji nga xam ne amaana amoon na baax ba fajar jot sanguwut nag mu jàpp ne ñàkk sangu googu day yàq koor ba tax mu bañ a woor kooku tawilul xarib lay def kooku tamit ah, moom day fay dong li ñu tuddee tawilul baid nag mooy ki nga xam ne kooku moom day ànd ak fay ak mooy lan mooy ki nga xam ne daa baaxoo woon sax alxames boppam di métti léegi tey la àllarba mu ne suba di du ma woor ndax sama bopp bi day métti sax alxames kooku tawilul baid lay def kooku bu subaa moom bu wóorut day boole fay ak kafaara ak yéen mel. ak ki nga xam ne amaana sa baaxoon na sax mm, bis nangam la war a gis sama régal tax mu xëyal ne bu subaa duma woor suba dama war a gis sama ah, régal boobaa kook tawilul baid kooku tamit day ànd ak fay ak kafaara ndax mbir mi da war a bàyyi ba mu yegg si yow nga door nga door ko kii nga door a ah, xam ne léegi ngànt am na boo xëyee wooral bu dee mu bëccëg bu la dikkalee nga xam ne dikkal na la kon mi ngi noonu kon képp koo xam ne dangaa woor ci ci bu mel nii nga dog ci bu mel nii mooy yaakaar ne sa li ngay tukki mën na 70 kilomètres ba tax nga dog fekk matu ko kooku fay dong moo ci war mu ne wa kullu man aftara képp ko dog mu tax aw wilan ci taawil maanaam yaakaar ne dafa yaakaar na jot na rek moo tax mu dog ci mu ne kook fala lay alayhi kook kafaara waru ci kon képp koo xam ne rek da dog ci taawilul ah, xarib mooy yaakaar ne heure bi jot na wala yaakaar ne kon tukki bi man na soixante di kilomètres wala yaakaar ne da nga bëgg xëdd fekk na xëdd passé ba tax nga dog ak yu ni mel yu mel noonu boobaa loolu la ñuy jàppee taawilul xarib boobaa kook fay rek moo ko ciy war waaye moom boobaa du ci kafaara wante kon ki nga xam ne mooy kafaara mooy ki def tawilul baid kon mi ngi noonu kon xam naa kon ñu ngi ñëw doyloo lool di wax ne lépp lu ci leer yàlla la lépp lu ci dëng ñun ñi di wax ak yéen la di jaajëfal Oustaz Sane mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ci caméra bi waaye di jaajëfal mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci koor gi ah, di soññ ñi nga xam ne abodoogo ñu ah, abonné ndax bu suñu waxtaan duggee rek man koo am direct in uridu illa al islaha mastata'tu wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu كول لي سيدنا النبي كول لي